à la fin. après le sport nag moom su ñu wàccee noppalu xewlu. Mhm. Euh, julli. waaw noppalu tuuti doog yëgaat nag ñoo jublu ci liggéey bi. Mhm. comme tey jii ñu ngi installé wu ndànk-ndànk euh, barricade yi moo tardeel suñu installation waaye bureau bi waroon na pare bu yaa gis nga menuisier yi commencé nañu liggéey pareeguñu ñu bloqué kër gi waaye ñu ngi. installé wu ndànk ndànk donc fii la ñuy ñëw toog bëccëg bi fii la ñuy nekk liggéey mhm. ko liggéey fii lañuy ñëw liggéey tuuti ba saa ñuy sant sentir fatigue rek ñu wàcc dem noppalu ci ok suñ ñëwee euh, dañuy commencer toujours ci am tuuti lu ñu coof ci euh, li ñu bokk ñun ñëpp muy diine ji mhm. ndax ñu ngi es jël kii ndànk ndànk société fii am na ay téere yoo xam ne ci mbirum nasaraan la li ci ëpp. ñuy mm-hmm. jox ci comptabilité ñuy jox ci fiscalité ñuy jox ci droit. ok jox ci économie yooyu yëpp moo fi nekk. Mm-hmm. boo ñëwee fii am nañ ci ay quelques téere yoo xam ne ci wàllu diine la am na ay am na bible bi. Mm-hmm. parce que bëgg nañ sopp nañ de temps en temps ci bible bi. ok ñu jàngat. Mm-hmm. donc am na donc téere yoo xam ne day jàngale lu jëm ci wàllu fiq ok donc daal li ma ko waxee sànq rek def nañu wàllu yaram mm-hmm. luy suuxat yaram bu ñu paree dañuy ñëw ci luy suuxat xel ci wàllu xel nag moom dafa am loo xam ne ci spirituel la am loo xam ne ci temporel la moo tax bu ñëwee toujours nañu ubbi tuuti ci spirituel mm-hmm. euh, dooga dugg ci truc bi jël kaamil bi Euh, comme dañ koy faral di jël di def ndànk-ndànk luñ ci for rek comme duñu duñu doomu daara. Mhm. suñu suñu kaamil des na. Mhm. suñu njàngin des na waaye suñ ko jëlee dañuy commencé rek ci kaw di wàcc ndànk-ndànk rek buñ ci amee benn xisib wala benn nisf. Mhm. walla robo sax baax na waaye ndànk-ndànk rek ba keroog ñuy pare. mën nga ñu mën nga ñu jàngal si kaw ñu dégg ba xam. déet bu jàng loolu loolu bàyyi naa ko ñoom ko saas tay rek ñoom ko saas tin jàngal laa koy bàyyi jàngal tuuti rek jàngal tuuti toujours daal noonu la ñuy dawale tuuti defe naa ci suba bi ñuy kii ñu nga yemoon ci sóoratul Kahf bi donc na ni ñuy jàng suñu paree ñaanal suñuy way ay daw yi ñaanal ñi fi nekk di dund waa ñaanal réew mi ñaan jàmm kon saa su ne noonu lañ koy doxalee suñu paree loolu nag loolu jublu ci liggéey bële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 yal nañu yàlla sàmm sàmm mbooleem waa réew mi amiin ci xaj ak seen amiin ci ku bokk fii ak ku bokk fële ndax kenn mënul am jàmm say dëkkandoo ñàkk ko yal na yàlla may ñu wér gu yaram may ñu déggoo ci xol yi yàlla yërëmal ñu yàlla yërëm ñu suñuy way daw yi nag rawatina nag suñu mbokk yi nga xam ne faat nañ leen ci lu dul dëgg ci kaw rek ñoo ngi doon réclamer seeni droit te noonu doon ay xale nag di xeex ngir dëgg gis ne coïncidence sax mu fekkoon ñu nekk ci sortul gaf yi waaye yaa ngi dégg fi yàlla ne Eh, nahnu naqussu alayka nabahum bilhaq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda ay ndaw yu yàgg a taxaw eh, ngir bañ lu dul dëgg ak ngir bugg saxal dëgg te di xeex yàgg na am te benn exemple la ngi ci nii ba yàlla feye leen ko ni mu leen ko feye ci ni leen aare kon yàlla nañu yàlla boole aar ñun ñépp aar réew mi musal ñu ci seytaane ki pexem musal ñu ci pexee noonu mus lii mooy suñu musluwaay ñun demuñu ci lijjantiwuñu leneen lu dul essayer fu ñu nekk rek di làpp ci gannaaw yàlla ndax kuy am doole rek yàlla la ko ëpp ku am pexe rek yàlla la ko ëpp moo tax ñaan mooy audu billahi min kaydil kaahidin wa makril makirin wa sihri saahirin wa baghil baaghin wa tughaatil mardudin wa junuudi iblisi ajmain innahu min suleyman wa innahu bismillahi rahmani rahim di musu yàlla saa su ne ci pexe borom pexe yi ak borom jabar yi ak eh, borom faskat yi ak lépp loo xam ne ci iblis ak ay armeem ndax moom dafa am ay armé yàlla nañu yàlla musal seen pexe ñoom ñëpp te musal ci réew mi amiin musal ci mbooleen seen seen yi nga xam ne dëgg ñoom nga leen kon bu ñu génnee ci lii dañu ko tënk nag ndax yaa ngi ciy dugal damay bañ ñu naan waa ji ngay jaay mi ngay ustaas ustaas su duñu ustaas jullit rek lañu lii warul jomb benn jullit dëgg la bu dee catholique ba ca biibalam la uh-huh. bu dee jullit bi ci alquraanam la uh-huh. jullit nu mu bon bon bon ak nu mu yées yées yées catholique nu mu bon bon ak nu mu yées yées yées war na ko téere gi mu gëm moom mu koy gëstu uh-huh. di ci xoolit ay erreuram di ko jéggalu borom bi di essayer defar waat di essayer rattrapé wu kon su ustaas ustaasu du jaay diine waaye lii dafa bokk ci nit dama wax léegi lu jëm ci wér gu yaram yaram en tant matière ay tàggat yaram bi mhm. wax léegi li jëm ci liy wéral xel ak xol loolu nag bu dee noonu ay jullit dañu bokk na ci lii naa leen ni carte bible baa ngi nii léeg-léeg ma jël ku gëstu ci tuuti mhm. euh, bii bu màcc moo fi nekk léeg-léeg ma jël ko xaw koo liir ci ay paas parce que ci la bokk euh, xam-xam dañ ko ut fu ne te daf noonu dem leen uti ko ba Siin daf ñu koy wax boobu Siin di woon ay jullit kon beneen xam-xam lañ ko doon uti donc xam-xam nekk daf cee war a dër waaye nag bu ñu génnee ci pàcc boobu nga xam ne mooy pàccu diine ci pàcc wi nga xam ne mooy li jëm liy doxal àdduna fi ñu toll nii moo xam économie la moo xam droit la moo xam finance la moo xam bépp xeetu science danañ ci am curiosité am luñ ci gëstu agronomie médecine mënoo nekk spécialiste lépp waaye mën nga essayer comprendre lu bëri loolu moo tax ñu pare ci loolu nag dugg ci deuxième partie bi mooy lépp loo xam ne dañ ciy liggéey ci wàllu xel te muy lu am solo nag jamono jiy tembe mhm. nii ñu tëjoo fii wala nit ñu fi tëjee mhm. daf ñoo yombalal ñu liggéey ci yu bëri. ok bu ci njëkk mooy ñoo ngi liggéey ci téere gi ñu bind ndax dooroon naa ay weeri weeri weer ci gannaaw benn téere boo xam ne suñu gis-gis ci Afrique ñuy wax vision africaine ci laa ci liggéey ndax njëkk nañoo bind téere wax ci ni ñu yoree suñu pétrole suñu gaz mooy suñu téere gi ñu njëkkoon a bind 2016 moo ne woon fi coow ju bëri ñu ñëwaat bind beneen téere boo xam ne ñu ngi ko jagle woon li nga xam ne mooy suñu gis-gis ci Sénégal ni mu war a mel mm-hmm. mooy bu njëkk bi mooy won pétrole et gaz chronique d'une spoliation mm-hmm. ñaareel bi ñu bind ko génne ko balaa campagne bi mu ne woon solution pour un Sénégal nouveau di téere bu am solo boo xam ne ba léegi nit ñaa ngi koy jënd di ko liir. Mhm. damay toog waa bitim réew di ma woo ay nasaraan ak ñeneen ak ñeneen naan ma liir naa sa téere bi waaye partie bi dama bëgg ñu waxtaan ci. Mhm. ñu dellu si waat bi ñuy jëb dëgmal élection wu locale yi ñu génne beneen téere boo xam ne dama ko bokk ak Balla Moussa Fofana nga xam ne boobu suñu gis-gis la ci li nga xam ne mooy décentralisation mooy gox goxaan yi. Mhm. naka lañ ko war a yore mairie ak conseil départementaux yi kon boo seetee wax nañu ci lenn ci ni ñu yore si suñu lenn si suñu koppalu réew mi ñëwaat jël téere bu gën a yaatu boo xam ne suñu gis-gis ci Sénégal ni mu war a doxee la mm-hmm. beneen ñu wax ko ci li nga xam ne wàcc nañ jóge ci état bi ci kaw wàcc ci collectivité locale yi ma jàppoon ni nag jot nañu yéegaat parce que ñun panafricaniste lañu mm-hmm. ñun Afrique lañu gëm ñu jàpp ni xam na lu ñu war a liggéey maanaam la ñu war a bind ci lan mooy suñu gis-gis ci Afrique ñu dooroon ko nag ci ay weeri weer ci gannaaw gàllankoor yi ak problème yi yëpp ñu ñuy teg suba ngoon convocation euh, agression ak yeneen ak yeneen taxoon ba ñu suspendre ko mhm. waaye comme jamono ji am nañ jot nag ñu sëggaat ci muy téere koo xam ne ñu ngi ñaan yàlla mën koo yëgali ci ni mu gën a gaawee parce que am na xalaat yu am solo yoo xam ne ñoo ngi ko ciy développé mhm. Euh, loolu di benn mhm. ñaareel bi nag euh, muy li nga xam ne mooy suñu programme pour élection bi ñu jëm mhm. loolu wax dëgg yàlla def nañ ci liggéey bu am solo ndax xam nga dañu defoon programme 2019 mhm. ñu defoon ko ci base euh, nu mu tuddati ñu defoon ko ci base livre bi mu bindoon Euh, solution solution doon inspiration bi uh-huh. euh, waa Moncap ñi nekk fii ak ñi nekk bitim réew uh-huh. moo xam France Italie Espagne États-Unis Canada fépp daal fépp foo xam ne borom xam-xam ngi ci uh-huh. ñu def ay commission liggéey ci liggéey boobu joxewoon programme 2019 bi nga xam ne borom xam-xam yu bëri bindoon nañ ci nañ ci xool nañu programme yëpp waaye jàpp nañu programme boobu moo gën a ñoŋee ci programme yi liggéey boobu nag la ñu reprendre at liggéey ko ci anam goo xam ne euh, équipe yi équipe yi ñu amoon ñun dafa gën a yaatu waaw moom kam jëlaat liggéey bi ñu def ci liggéey bu ama am solo liggéey boobu nag jébbal nañ ma ko dafa dafa ci livre ba uh-huh. yokk ci programme 2019 waaye ñu ànd ci nag xalaat yu bees yi uh-huh. parce que xalaat dañ koy actualiser wala dañ koy réactualiser saa su nekk xalaat bu loo xam ne dafay dund loolu figé la uh-huh. donc liggéey boobu jot nañ ci it te boobu ba léegi maa ngi si sëgg di ci di ci di ko gën a xóotal ndax liggéey bu am solo la gaa yi def nañ ci liggéey boo xam ne macha allah. kon kon on peut dire que c'est peine perdue peut-être ñi yaakaar ne ni ñuy agressé Pastef nii amuñu temps pour préparer li nga xamante ne moom mooy élection présidentielle. non loolu peine perdue la ndax ñun defe naa lii daf ñoo gën a permettre ñu am jot. Mhm. parce que lii su su lii amutoon du ma am recul bi ma am nii bu mën cee liggéey ndax jamono ju ne yaa ngi ci tournée yi. Mhm. yaa ngi ci àll bi yaa ngi ci audience yi de recevoir yaa ngi ci réunion yi. Mhm. yaa ngi ci terrain Euh, waaye lii may nañ ñu am recul boo xam ne mun nañ ci liggéey nañ ci lool warul nag continuer mhm. ndax politique balaa lépp balaa dara terrain bi la mhm. warul continuer lu war a dakk la ndax jot na ñu dellu nag ci sénégalais yi namm nañ leen namm nañ ñu mhm. jot na ñu reprendre liggéey bi waaye am na ci ndax nit loo gis rek yow yaa ko war a transformer en opportunité effectivement situation boo gis rek nu mu métti métti njëriñ mun na cee jot. Mhm. yaa ci waa ko war a transformé en une opportunité. lii nag lii la ñu mënoon transformé en mënoon naa tëdd fii di nelaw di yeewu waaye defaru nañ ci tuuti ci wàllu wér gu yaram mhm. ndax ku ma daan gis ci euh, semaine lée yële nit ñi dañ ma daan wax sax naan ma yërëm nañ lu jeex nga tàkk ak euh, et cetera parce que doo lekk doo naan yaa ngi tout temps ci action bi mais am nañ ci loolu waaye am nañ ci liit te lii am na solo. programme bi nit ñi liggéey nañu ci ay thématiques. Hmm. boo seetee mat na 36 thématiques. yoo xam ne liggéey nañ ci mu commencé ci agriculture mooy mbay mi. Hmm. élevage càmm gi pêche parce que ñun yooyu moo ñu gën a yitteel ci lépp. loolu mooy base réew ak base économie. Hmm. ensuite ñu andi environnement cadre de vie travail et emploi réforme de l' enseignement supérieur, formation professionnelle, recherche scientifique et technologique, affaires étrangères et panafricanisme, décentralisation et réforme territoriale, habitat, aménagement du territoire, culture, tourisme, artisanat, défense et sécurité, sport, santé, protection sociale, commerce, entrepreneuriat et PME, numérique, éducation nationale, industrie, mines et carrières, justice, transport infrastructure patriotisme et citoyenneté énergie hydraulique économie finance publique et budget économie sociale et solidaire muy 36 thématiques yoo xam ne liggéey nañ ci mu joxe benn document boo xam ne fi mu toll nii tembe cent 136 pages la waaye dinañ ko liggéey dina am version allégée bi dina am lépp ba suñ koy delloo sénégalais mu doon loo xam ne lu comestible la lu neex lu neex a lu neex a jàng la ah. ñu yokk si nag ay gis yoo xam ne mu ngi ci biir document ah. parce que dafa am enjeu yoo xam ne mooy enjeu wu tey mooy enjeu wu àdduna bi te suñu réew yi xaw ci néew xalaat ak projection trop trop trop moo tax àdduna bi yëpp largué donc eh, loolu ci li ñuy liggéey la ñu ngi ci avancé bu baax a baax a baax di wax nit ñi bu soobee yàlla ah. bu ñu génnee suñu programme ku ko liir gëm naa ni dina jafe nga beneen programme programme bu fees sa bët ah. parce que du programme sax Ousmane Sonko waaye ñi ci liggéey ñoo bëri te ku nekk sa xam-xam màcc ci dara ñu liggéey ci liggéey bu am solo boo xam ne ay weeri weeri weeri weer ci gannaaw ñu nga ci da ci liggéey ak ay échéances yu fixé woon en cours de ay rendez Euh, équipe bu professeur Daouda Ngom waaw Mankab mhm. def ci liggéey boo xam ne macha allah ñu ngi leen ciy bu baax. kon ci lii lañu ñu nekkee. Mhm. ñu ngi si jàmm. donte situation bi jaaduwut. Mhm. te gëm nañu jot na Sénégal yëpp jóg ñu dindi fi lii. parce que ci fitna la ñuy yóbbu waaye en attendant am na au moins suñ ci jëriñoo. ak lu ñu jëriñ lu ñu ci liggéey loo xam ne gëm nañ ni jëriñu réew mi la moo tax euh, comme on dit rien ne se perd tout se récupère mhm. tout se transforme lépp ci état d'esprit la ak mental mhm. te état d'esprit boobu ak mantal boobu la ñuy woo toujours les patriotes parce que réew mi faw ñu changé ko waaye li ko war a changé xeex bu lay doon xeex bi nag du génn di xeex di sànni xeex loolu foofu lañu toll ci jamono ji. Hmm. mais bu ñu dénkee réew mi xeex bi mooy li ñu woote ñun bi ñuy créer parti bi le don de soi pour la patrie mooy énergie boobu ñu am cawarte boobu ñu am engagement boobu ñu am pour suñu réew bëgg ba mu jaral ñu tey ñu mun a taxaw di xeex te xam ni lu ne mën nañu cee dal loolu yëpp ñu transformé ko dugal ko ci liggéey bi nag pour ñu suñu réew woo ñu xam ni liggéey la buñ ñee dañoo soxla ndaw ñi. parce que autosuffisance alimentaire la ñu bëgg aménager des périmètres agricole bu dul jeex ci vallée du fleuve wala fële ci Casamance nit mun a daan dooleem am ci suturaam waaye def ko ngir réewam tam ñu am bénévolat boobu boo xam ne xale yi dinañu ñëw massivement bu ñu soxlee nit ñi pour des travaux d'infrastructure ñu def ko waaye bu ñu wooyee nit ñi ci loo xam ne respecté discipline ak loi comme ni ñu koy gisee ci dëkku tubaab bi te ñoom waruñu ñoo gën a bëgg seen ñu gis ko également ci ndaw la waaye loolu day commencé ci yow miy jiite nga joxe la bon exemple mhm. parce que jiit foo bëgg a yóbbu nit ñi foo nga jiitu leen si waaye bu dee dañuy gis ni yaa ngi dëkk xale alalu réew mi jël ay milliards yow ak sa njaboot ak say mbokk ba pare naa nit ñi kaay leen say impôt wala kaay leen génn nettoyé mbedd bi mhm. xam nga kenn du la ci topp mhm. bu ñu gisee ni yow yaay njëkk a jalgati yoon ki ànd ak yow bu jalgatee yoon nga làq sa gannaaw ki ànd ak yow nga ne nañu duma mhm. est-ce que kooku dañu dinañu mën a topp say say ndigal mhm. kon njiit dafa war a doon exemple wala njëkk a joxe exemple si fi mu bëgg a nit ñi kon loolu mooy suñu défi ñun mhm. kon ñu ngi gërëm ñëpp lii waxtaan bu ndaw rek la woon pour nit ñi xam naka la ñuy dundee situation bi ak période bi di leen euh, fàttali nag journée bi samedi le 15 man ay affaire anniversaire moom ñi ma xam ñëpp xam nañ ne du samay mbir uh-huh. anniversaire euh, dellu sant ci yàlla la ak gën jéggalu yàlla ak gën a góorgóor noonu laa ko sa jàppee anniversaire uh-huh. parti bi nag bi ñu commencé ci politique ba léegi dañuy célébrer suñu anniversaire ñu ngi leen ciy gërëm leen ci sant di leen souhaiter yéen parti bi yépp joyeux anniversaire parce que seen anniversaire la yéen bu Ousmane ko tollee fii bañ koy tudd rek gannaaw yàlla yéen ñii la waaye bu doon man donc du ma dem fenn kon 15 juillet seen 15 juillet la yéen waa parti bi kenn ku nekk yéen maa ngi leen di souhaiter joyeux anniversaire waaye di ci yokk ni bésu bésu samedi bii dañ ko war a dundal ci wàllu politique bu leen fàtte concert de casserole ci guddi gi bu leen ko fàtte parce que dafa am solo ci message bi ñu bëgg yónnee àdduna bi yëpp ba ñëpp dégg kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di yàlla may ñu dund ko at yu bëree bëri bëri mu ànd ak wér-gu-yaram ànd ak jàmm ànd ak sutura ànd ak progrès waaye mu ànd surtout parce que loolu am na solo ak suñ koy feetee di année prochaine 2024 yàlla na yàlla def ñu feete ko. palais de la république fekk def nañu suñuy premier mois ba Sénégalais yi gis orientation yu jëm parce que programme bi ma leen wax am na ci mesure yoo xam ne ci trois premiers mois yi lañ ko war a jàllale am na yoo xam ne six premiers mois yi la am na yoo xam ne deux premières années yi la am na yoo xam ne ci durée mandat bi la kon juillet suñu yàlla may deux mille février deux mille vingt quatre ñu teg loxo suñu réew mi suñu loxo euh, avril ñu prêter avril mais juin juillet dinañu am suñu ñeenti premier mois yoo xam ne Sénégalais yi dañu gis yan premier acte la ñu posé yoo xam ne ku ko xool xam ne ñii fi ñu jëmale réew baax na kon yàlla ñu ko yàlla defal jërëjëf merci beaucoup